leen jaajëfal bu baax yéen internet yi di am contentement jënd ak yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi ma dégg ndi li gën a fës ci xibaaru làmb ci noonu nag damay nuyu Assane Wall mi mu fekkoon ñu daal ñëw jukkil leen li gën a fës Assane maa ngi lay nuyu. Ndeye Bakké naa la di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen di gën a fës ci yenn kaay yi. balaa ngeen ñu ñëw ci revue bi rek dañuy ànd ak suñu partenaire nee na leen léger na baax na amul cholestérol gën na ci ñun gën na ci mag yi gën ci xale yi ba léegi nag jador ba mu indee huile bi dafa ne déet daal di indi spaghetti jador indil ñu macaroni jador asan waaro mm. indil ñu vermicelle jador ñu ne déet waaye mu daal ci teg ataaya jador daal kenn du moom complet 100 pour cent te moj ko lay mbàkkee o Kayar moom moo ci topp ndox mu bees mi ndox mi nga xam ne nii oyof na neex na naan te cherul un litre cinquante rek lay def euh, am wuti leen ko ci marché yi euh, foo dem ma nga ko fekk euh, au Kayar daal instant yi moo xew quoi. lay mardi journal suñu labo mu njëkk. premier face to face entre guy gi le roi du simple ak nga xamante ne ni mooy rëdd xale MMA ba ginnaaw bañ dajee fee jël ko ci TFM ya daal di sànnante ku nekk ay kàddu la ca rëdd di xam ne na ko fukki combat maanaam dix combat dama lay daan guy gi. dëgg la euh, Ndeye Mbacke premier face à face la woon loolu dimanche bi passé la amoon ci loko TFM. guy gi ak rëg-rëg ñi nga xam ne ñu ngi war a daje le 29 euh, août bii di ñëw ñoo fa doon daje def seen premier face à euh, fa nag ay kàddu gu rëg ko buñ defee dix combats dix yëpp dama la koy daane man leer na ma ne le jour dama lay daane guy gi ne ko da ngay nax sa bopp ndax bu la neexee sax ñu def cinq minutes yoo xam ne ni amul laalante dóorante la xeex ba naaw loolu tax euh, guy gi euh, instant yi moom nee na pare na pour dajeek euh, kii di rek Reug te le jour du ko may dara. ginnaaw face to face nag guy gi pour mieux préparer son combat contre le fils de Thiaroye sur Mer. dem na fee ci États-Unis ngir waajal boppam. dëgg la ginnaaw bu mu jógee ci face à face bi ci biir face à face bi sax la ko annoncé ndax dafa gis rek rek ne ko sa poids bi euh, waru mënuma mënuma mënuma mënuma arrêté c'est boo nga dem yokki sa poids ndax man su ma jógee ci euh, face à face bi damay dem Amérique directement quelques heures après ni mu ko waxee la ko defee dem Amérique pour euh, mottali préparation xam naa bu fa demee dina gën a jàng boxe dina pré physique physique bi également dina ko gën a defar pour que le 29 mën a jàkkaarloog Reug Reug bu baax a baax. mu ngi noonu nag ginnaaw ba mu nekkee doomu mbër wóor fils d'ancien lutteur kii di Sa Loum Ndaw ba ci Pikine di Ama Baldé ndax dina ci teg nekk roi des arènes ndax kii di Balla Gaye numéro 2 nekkoon na fii doomu mbër nekkaat fii roi des arènes journal bi loolu xëy na samp laaj Assane. dëgg la Ndeye Mbaye Ba Ndeye euh, Mbacke Euh, fils de d'anciens lutteurs yi bëri nañ ci làmb ji ñi nga xam ne nii ay doomu mbër lañ bëri nañ fi mais ñun ñëpp Balla rek moo ci mos réussir nekk doomu bër nekk roi des arènes ginnaaw bi mu daanee Yékini euh, Ama Baldé nag am na occasion def la même chose ndax war na dajeek Modou Lo vingt cinq décembre bi di ñëw léegi journal suñu la am posé la question est-ce que euh, Ama Baldé dina jaar ci tànki Balla Gaye mi nga xam ne ni nekk na doomu bër ba pare nekk roi des arènes ñu fàttali ne Papa Sow doomu bër la. mën naa am euh, def loolu euh, les de Sa Thiès Diène Kaïré ñoom ñëpp ay doomu mbërante ñu ngi ci làmb ji ñoom it am nañ sens def la même chose. mu ngi noonu nag olof jaaree fa ne doomu mbër jàngi mbër yàgg yàlla des na la musa ñam ca noonu drapeau de chef de l'État bañ jëm asal wàllam du 28 du 27 au 30 mai incha allah. Mhm. au CRG CRG ba nekk Fatick kii di Matar Ba ministre des sports daan na leen dimbalee nga xam ne ne mooy 25 équipement. de 500000 francs. dégg la euh, Ndeye Mbacke le 27 le posé bi le 28 lay compétition yi di démarrer euh, war a jeex le 30 mai 2021 foofu ci Kaolack Matar Ba nag moom euh, jox na ndimbal waa région Fatick bi nga xam ne ni participer ci compétition bi ndax dimanche bi passé jox na leen ñaar fukk ak juróomi souverainement yi nga xam ne ni équipe bi mën na ko sol mais teg ci également benn enveloppe bu 500000 loolu dimanche la leen ko dem jox kii di président CRG bi. di Père Sambara Dieng moom moo nangu euh, ndimbal loolu. mu ngi noonu nag ginnaaw seen face to face ba kii di Gamou Gueye 2 Assane Wala ak Sokh tëkkuwante nañ ku ci nekk nee nga sa morom. xeex bu métti laa lay indil jour combat bi combat nag mu ngi amee le 6 allah. Baba Diaw moom moo tëgg combat boobu Baba Diaw dëkk Medina dimanche bi passé nag daf leen a woowoon ci benn face à face foofu ci village artisanal bu Soumbédioune loolu foofu la face à face bi doon amee gàmmu gee ak soq daja fa nag eh, mu nekkoon face à face bu tàng jër ñaari bëri kenn mayul sa morom dara ba pare ay ay promesse yoo xam ne nii yu neex lan fa joxe ndax ku nekk fas yéene nga eh, li nga am lépp le soq lu wax moo nee ne dès le coup d'envoi rek moom day attaqué adversaire am nga mu génne ko man loo indi rek dinaa ko gérer xam naa lu may def pour am ndam le jour ji. kañu attaqué nag daal koy kone nga ne ko mooy Boy Kaza ku looy Eumeu Sène boobu nga ne Rambo mu ko duma daal di koy daal fee ci arène nationale. Serigne la mu Niang dëgg la Ndeye euh, Mbacke loolu démb la woon ci arène national Serigne Modou ñaar tëgg fa ba benn combat bu waroon dox ci diggante Rambo ak Boy Kaza comme ni nga ko waxee Rambo moom moo moo daane Boy Kaza waaye amoon na dix combats au programme ndax Ongué moo fa daane Boy Seck bébé Garga daane fa bébé Pape Fall kii di Rëm Junior daane fa Modou Boy 2 kii di bébé euh, Jordan. daane fa Free Batch kii di fils de Samsam daane fa Confiance Thiatou Ama daane fa Volcan 2S euh, daane fa bébé Sathiès kii di Ngel Mag daane fa Thiatou Fissel euh, premier combat bi nga doxoon ci diggante bébé mm, sa Ndiambour moom mu nga fa daane mbës bu daaru ca doon nag tournoi international au Burkina Faso suñu génnee nag Assane jaar dañ fay jëlee ñetti trophée médaille d'or dëgg la Ndeye Mbacke Boy Faye ordinateur ak Abou Assef ñoom ñoo composé woon équipe nationale bu Sénégal boobu da leen a woon ci benn tournoi international boo xam ne dafa am làmb foofu ci Burkina Faso tournoi international boobu nag juróomi euh, réew ñoom ñoo ko doon euh, disputé ñu mën ci lim Côte d'Ivoire Burkina Faso euh, Togo Niger. ak euh, Sénégal juróom yi nag euh, Sénégal moom moo jël ndam li euh, am jëlee fa ñetti médaille d'or Boy Faye am na médaille door ordinateur am na médaille d'or Abou Assef am na médaille door amun fa nag defet ndax dañu dóor Côte d'Ivoire 3-0 dóor Burkina Faso trois 0 dóor Niger 3-0 dóor Togo 3-0 jël trophée bi. di leen naan macha allah suñu gaynde yooyu yàlla leen ndam li ca noonu nag pour ñu waajal li nga xam ne mooy drapeau chef de CGM Kaolack daal nay organiser benn gala lutte simple. Mhm. daal di fay teg 3 millions euh, na leen ko bu ngeen duggee ci site bi da ko seetaan mu nekkoon gala bu neex bari ay lutteurs ay lutteurs yu bari ñu fa woon Zambale mi ngi fa woon Doudou Sané Thiaka Faye euh, Tas Yaakaar mi nga xam ne ni moom mooy Mor Asadem ñoom ñëpp ñu ngi fa woon mais finalement Doudou Sané moom moo fa daan euh, final Thiaka fay bi mu ko daanee nag am na 900000 Thiaka Faye mi ñu daane ne am na 600000 demi-finalistes yi am nañ 100000 mille euh, de finalistes yi am nañ 50000 poids léger yi Pape Ndiaye sox-sox moom moo fa daane Biram Sarr euh, ginnaaw bi ñu ko daane am na fa 400000 Biram Sarr mi daane final am na 300000 demi-finalistes yi am nañ 50000 quart de finalistes yi 25000. ca loolu nag bu ñu ñëwee fii Dakar Ndiaye Diallo Diop Adrien Senghor Ibou Senghor bi ñu dee ak Doudou ko Assane. dëgg la euh, Ndeye Mbacke Adrien dafa amoon ak dimanche. muy dekk weekend boo xam ne ni tàngoon na jër neex na foofu ci arène Adrien Senghor samedi Boucar bu Reug Reug moom moo fa doon tëgg benn gala misé woon fa 500000 euh, gala boobu nag euh, Ngane Seck ñu gën xam ni Ibou moom moo fa euh, jël trophée bi moom moo fa daane final El Hadji mi nga xam ne ñu ngi ko gën a xam ci X9 bi mu ko daanee nag am na 250000 X9 mi ñu daanee am na 150000 dimanche ci ëllëg sa boobu production moom moo fa doon dalal mbër yi misé woon fa 1 million. témoin boobu nag Doudou Sané moom moo ko jël moom moo fa daane Mamadou Pouy ñu gën ko xam ci li huitièmes de euh, si final bi du Sané ginnaaw bi mu ko daanee am na 500000 li huitièmes mi daan mi daanu final am na 350000. te loolu nag ginnaaw ba ñu jógee Adrien Senghor ñaaxaar lañ jëm ñaaxaar nag Serigne Ndiaye numéro 2 moo ko imposé wu Assane. de même également li fa xew lépp du ngeen ko duggee ci site bi wala ci compte YouTube bu Leewtoo TV da ngeen ko gis ni moom moo fa doon euh, dalal benn gala Yékini ak euh, structure bi nga xam ne ni mi ngi tudd Faata production ñu euh, mën ci ràññee Pam Ndangaan bu baax a baax a baax ñoom ñoo fa doon donc tëgg gala boobu gala boobu ñu ngi misé woon 3 millions. foofu Serigne Ndiaye 2 bu faas Ndakaaru moom moo fa daane faamara baasul eh, daane ko final ginnaaw bi nga ko daanee nag am na 1 million 400 mille Famara Basul bi nga xam ne ni moom lañ daane final am na 730 mille eh, poids léger yi Babou Sarr moom moo fa daane Babacar Songo final eh, Babou Sarr am na 700 mille kii di tournoi boobu mise boobu 7 poids léger yi seen mise 700 mille la woon donc baabu Sarr ginnaaw bi mu daanee am na 385 mille kii di Babacar Sonko am 245 mille. ginnaaw loolu nag ba réeroo amee diggante maa ngi raq laa wax ñaari promoteurs yi di Aziz di mooy Pape Thialis Faye la boss mooy Gaston Mbengue la boss de Production ginnaaw bañ sa morom track mhm. kii di Aziz Aly Ndiaye daan na leen woo fekkee Maris kër ba tax na Aziz Aly Ndiaye daan na jubóole ñaan ñoom. dégg la Ndeye loolu samedi la woon samedi ci guddi vers ay vingt et une vingt deux heures. Aziz Ndiaye ginnaaw bi Gaston ak Pape Thialis Faye amee ay jafe-jafe réeroo ci ay kàddu mu dajale leen woo ku nekk ne la bëgg naa ngeen gise caalis mi nga xam ne nii moom mooy xale mu ne ko jógal nga dem xooli nga seeti sa papa ngeen jubo donc ñu dem gàlle kër Gaston Maris ñu juboo waxtaan ba déggoo ci kàddu bu ñu fa jógee daal ambiance bu neex reer naan fa reer yu tàng jër ñu <laughs> dëgg la Ndeye Mbacke Oboli ñu gën ko ràññee ci lutte simple temps yi mu nekk ci gala yi def lu leer a leer leer dafa am nag benn gala euh, daan ko tëggal combat Brodeur moom ak Pape Yekini kan moo ko tëgg Rent Dakar ñoom ñoo tëgg combat boobu war ko am la amal le 27 juin donc Oboli bi nga xam ne ni gën na euh, ci arène bi depuis 2018 ginnaaw bi mu gagné capitaine Thiaroy amaan na occasion ginnaaw lutte simple bi mu euh, mu def également lutte avec frappe. loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoo di la remercier Ndeye Mbacke Babacar nekk fi tey mi ngi jof yor normalement instant bi loolu lépp pour toppal leen làmb fu lomb làmb am ci Sénégal Leewtoo fas yéene na dem euh, jox leen ko ngeen seetaan ko ni mu gën a baaxee donc ci noonu di nuyu waa Linguère yëpp di nuyu Yacine Fall di remercier équipe Leewtoo TV yëpp di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. la jaajëfal bu baax Assane bi ba Zador ak Okayar ñaar demee ngeen consommé ko lu gën ci la sama caméra wonoon bi Fama kontaan naa yow bu baax a baax a baax Adja Nafi Ndiaye maa ngi lay bëggee bu baax Kébé sama lonko bi depuis fay ca Ñaaxaar maa ngi lay bëggee ak Mbaye Babacar am ci yoon bu baax baax a baax Bilal sama cameraman bi naa ci yow për bu rafet sama kuréel waaye am naa ci yow mbégte naa Ousmane kontaan ci yow trop man pro sama caméraman bi yow loo filmé ko nee baaxul moom moom man sama chauffeur bi du mu daw lu ne bëgguma ko 100 pour cent assurance en sécurité ba mu leer sama jigéen di mën góor gi nag Aïda Diouf xeese booy maa ngi bëgg ci yow loolu mu matu bàjjen kontaan naa ci yow loolu Bamba sama papa Pape Thialis Faye borom kër gi dama leen di nuyu bu baax a baax noonu laay tàggatoo gi nag jox leen dig daje ëllëg incha allah